li ñu def mooy boole ñi nga xam ne ñooy tailleur jobaas yi ci xeex bi maanaam euh, sant leen ñu confectionné ñaari junniy masque yu teg téeméer yoo xam ne dañ ko jagleel personnel bi nga xam ne moom moo gën a nekk ci risque fii ci commune Noto muy ñu nekk Kër Docteur mais aussi ay gendarmes yi nga xam ne ñoom ñoo yor kaaraange gi ak ñi nga xam ne aussi mooy personnel en tout cas préfecture ak ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ci xeex bi te ñu nekk ñoo xam ne dañu bokk ñu gën a exposé wu. parce que fi mu nekk nii ah mënuñu ne maanaam dañuy defar masque pour euh, commune bi yëpp parce que Sénégal tolloogul foofu kon maanaam dañu jël lii nga xam ne mooy euh, li maire def ñu aligné ko ci li nga xam ne mooy situation nationale bi li nga wax aussi mu am solo lool mooy. T'ay ku nekk xam na ñi nga xam ne ñu artisan yi surtout tailleur yi ak yeneen euh, métier yi tey dañuy dañuy lottu trop ci crise bi ndaxte euh, nit ñi talatuñu yu bari donc moo tax euh, am na lu ñu mën a defar surtout comme masque yi parce que boo gisee ñaari junni ak téeméeri masque yi ñu defar nga xam ne non seulement day aider Sénégal pour mu xeex li nga xam ne mooy virus bi. bi mooy ñetteelu yoon muy andi ay don di ko jox population yi ak comité local bi. njëkk na fi indi ay produits yi ñuy raxaso yu bari trop mu waat ay vivre ceeb dowlin dolli ci yeneen produit tey mu commandé ay masque jaarale ko ci tayeeru noto jobaas yi loolu na ne en tout cas bàyyiwul population yi ginnaaw te mu ngi seen wet ci xeex bi vraiment loolu dañ koy rafetlu ñu sant ko ci bu bu baax yi des ñu fexe ba ñu ko war jot jot ko parce que am ñi nga ñoo nekk ci karam am nekk ci ginnaaw am ni ci topp ñooñu ñëpp dinañ fexe ba ñu am masque par exemple gendarmerie nga xam ne tout le temps ñu ngi sur le terrain ñooñu toujours day nekk ak contact ak nit ñi dañuy soxla masque waa santé ak yooyu donc vraiment masque yi am na solo di rafetlu surtout tailleur yi ñu ñu ko ñaw parce que c' est des métiers aussi nga xam ne crise bi da leen affecté kon lii bu amee ñu am commande bu mel ni dina leen dimbali kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax monsieur le maire di wax na rek cas communautaire yi ñu ngi commencé bari kon loolu bu amee ñu ñëpp war nañ jaaxle parce que cas communautaire mooy cas yi nga xam ne ñu ngi ci askan bi kenn xamul ñan la donc euh, loolu bu amee ça veut dire que personne n'est à kon war nañ gën a renforcer mesures barrières yi gën a moytu gën a def lu ñu sant mooy di raxasu di moytu dajaloo yi grand place ak yooyu dem ak dikk bi aussi ñu ñu wàññi ko bu dee mënuñ ko arrêté kon na ñëpp gën a defaru xoolaat euh, toogin yi ñu gën a fagaru parce que bu cas communautaire yi gën a bëri rek dinañ yóbbu ci situation bi nga xam ne day gën a métti kon occasion la pour ñun ñu tere appel bi ñu lancé population yi parce que ñun communiqué nañ lu bëri depuis début crise bi on a fait plusieurs sorties occasion bu ñu am rek saisir nañ ko pour waxtaan ak askan wi pour xamal leen ne dañu war a gën a moytu feebar.